sallam mm-hmm. awalam yaraw ndax gisuñu mm-hmm. ilal ardi suuf si mm-hmm. kam an bat naa bari na la nga xamante ne moom laa ca génnee min kulli zawjin ci lépp loo xamante ne xeetu façon la yu ànd karimin ànd bu rafet mu mel ni bi yàlla waxee lii ne fakat kazabu weddi nañu alquran ci makka ak ci madina waaye nag fa sa yaatim dinañu ñëwal am ba xibaar maa kaanu bi yastahzi'uuna li ñuy foyee mooy alquran mu di leen di jaral ñuy rey seen bakkan yi ngir loolu loolu xaw a jaaxal yonente bi yàlla di delloo si xel mi mu ne ko awalam yaraw ilal ard ndax gisuloo suuf kam an bat naa fiha seetal suuf ni mu nakkaree xet ak ni mu ñuulee ak buñ demee ba noor na muy dee dee wet waaye nag buñ asamaan bi ñëwee wa taw ci kawam rek fa an bat naa fiha génne fa min kulli zawjin karim la génn Nek lo xamante ne ko nit bugu nako baye may bugu nañ ko gunori bugu nañ ko sax yi bugu nañ ko kenn du ko te ko wax ne lekkal suuf mu bay kon lolu nga xam ne lañ tuddee yéefeeri tay ji ni alquran di wacc ci ñom ñuy bay gis nga dina am bes ñeppay gem alquran bo demee ci suratu uh, al anam fofu mu ngay wax ne bu sayyidina isa ñëwee sayyidina isa bu ñëwee ci ban gene lay nekk ci diina mooy islam muslim lay doon mu'min lay doon comme ñu ñëpp lan la yàlla wax foofu ci moom ne du dee mukk lu dul ne ñëpp gëm nañ ko du dee moom Insa lu dul ne képp koo xamante mu ngi ci kaw suuf rek dina ko gëm ci lan la koy gëm ci l'islam kon bi maana alquran bi ngay jàng gis nga bu ndox tawee ci kaw suuf suuf mën naa bañ ne du ma du ma sax mënu mm-hmm. ci dara mm-hmm. kon alquran itam bu wàccee mm-hmm. kenn mënu ci dara dina wàcce ci xolli yi bàyyi dafay bañ ne doom bi du dégg alquran wala du gëm lislaam alquran bañ yàlla bañ ba doom boobu nekk julli lu mu ciy man ku mul naka musaab yaayam ak papam lan lañ deful pour bu mu nekk jullit waaye mënuñ ci dara kon naka noonu itam alquran noonu la mel comme ni nga xam ne taw noonu lay def ci kaw suuf noonu la alquran di def ci xol yi mhm. kon yow Muhammad lii bu mu la xatal mhm. bul jaaxle gis nga suuf si noonu mu dee noonu asamaan bi ñëw taw mu sax mhm. naka noonu itam alquran bi di wàcc nii ñëpp dinañ ko gëm awalam yaraw ndax gisuñu ilal ardi suuf si kam anbat naa fiiha bari na lama fa génnee min kulli zawjin ci lépp loo xamante ne ñaar la karimin lu dul gàncax buy sax mën na am ñaari góor walla ba upp benn góor mu door am doom mhm. masalan la ñuy tuddee xar wala nag wala fas duy am jëkkër wala dina am mhm. amul jëkkër amul jabar mhm. lan la soxla rek na nekk bu góor boo demee ci nit dafay am jëkkër waaye mën na am jëkkër am beneen jëkkër am beneen jëkkër bi lu upp benn góor wala waaye nag gàncax nag benn rek lay am gàncax gàncax yëpp dañ jeex. Mhm. benn rek lay am. Mhm. boo ko seetloo xox boo lekkee ba pare boo ko xottee ci digg bi dangay ngay gis ñaar ñu takkaloo. Mhm. boo ko xottee ci digg bi dangay gis ne bii bu góor la bii bu jigéen la. boo ko jëlee dindi ko jël beneen ci beneen ba ñoo taf ko ci donc boo ko boo ko jëmbatee du sax. kon loolu ma tam mu tuddee ko zawjin mu teg ci karimin bi maanaa soxlawul beneen mm-hmm. ci ban la bugg a ci benn bii rek lay yem mm-hmm. ci benn bu góor bii ci benn bu jigéen bii nii mm-hmm. loolu moo tax mu teg ci karimin lépp zawju la wala waaye bu mu waxee gàncax nag mu ne karimin parce que benn rek la ñoom ñaar rek la ne fi dalika nekk na ci lii nga xamante ne moom laa lay wax nag la ayatan laami laami tawkiid la la ayatan kéemaan la wa maa kaana waaye nekkul aksaruhum li ëpp ci ñoom mu'minin ak gém li ngay wax ni ne dana am bés loolu ñuy tuddee an ñëpp di dee ngir moom ñoom fooguñu ko kooku nga xam ne moo lañ tuddee Ikrima ibn Abi Jahlin ci lan la dee nekkul ci yoonu yàlla di défendre l'islam ba dee baayam yaakaaroon na lool masu ko fo kon wa maa kaana aksaruhum ngir ne gëmuñu ko moo tax mu nekk kéemaan ci ñoom mu am bés ñii nga xam ñoom ñoo koy weddi ñëw di dee ngir ngir alquran loolu kéemaan lay doon wa inna rabbaka te kii nga xamante mooy sa borom la huwa mooy ka nga xamante ne al azizu ko am fulla la ca la muy def ar rahim waaye itam ko am yërmande la nam koy tege wa id naada rabbuka toujours buñu waaye id rek luy ñëw hikaaya wa id fatalekul yow muhammad naa naadaa ba mu ooyee rabbuka sa borom muy faayel Muusa o Muusa muy ma mafoolun bihi mansubun bi taqdir lan la ko yàlla wax an iti jogal nga ñëwal alqawma gaa yi nga xamante ne azzalimina dañuy tooñ az zulmu mooy tooñ mooy jël mbir bi teg ko foo xamante ne waruñ ko faa teg loolu moo tax mu ne bi alquran wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi ne alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin mm-hmm. loolu dafa jaaxaloon saxaaba yi mm-hmm. ni bu dee loolu de kan mooy ki nga xamante ne ayuna lam yazlim nafsahu mm-hmm. ba ñuy dem ba yeggale ko yente bi yente bi ne leen déedéet az zulmu la muy firi mooy as shirku bokkaale parce que inna shirka la zulmun azimun kon firi alquran ci alquran saxaaba yi door kontaan seen xol yi de la door feex kon az zulmu bu ko alquran waxee rek mooy firi la nga xam la ñuy tuddee bokkaale mhm. ndaxte ki nga xam mooy borom bi mhm. ku la jox nga lekk du moom mhm. ngay gërëm ku dul moom ku la jox nga naan ngay gërëm ku dul moom ku la jox wér ku la jox ni nga amee yëpp mooy borom bi tabaaraka wa nga di koy askane ci keneen ku dul moom di jaamu keneen ku dul moom kon tooñ jéggiwul foofu xawma firawna gaa yi nga xamante ni ñoom ñooy gaa yi firawna yi mooy atul bayaan ala yattaquuna ndax ñoom mënuñu ragal borom bi tabaraka wa taala te bàyyi loolu nga xamante ne moom la ñu dekkee ci caacaay li la yàlla wax Muusa kon moo ko yónni qaala rabbi Muusa daldi ko di wax ak borom bi ne inni man de axaafu dama ragal bu ma demee di wax ak ñoom añu kadibu ni ñu fen loo ma weddi ma te ñoom ci seen bopp buñ ma defee loolu yow xam nga ma dama xat xol waya di ko sadri ci saate dinaa mer te ku mer du àndanteeg sagoom wala yantaliku lisaani te itam bu boobaa du ma mën a tey wax ak ñoom te ka nga xamante ni moom ngay gindi nag dafa aajoo nga wax ak moom kon fa arsil man nga maa bàyyi nga jéggal ma ila Haruna yónni Haruna wala fa arsil comme man ci sama bopp man kese du ma mën a dem fa arsil yónneel ila Haruna moo ñëw ñu ñaar ñu ànd am na ñoo xam ne dafa gàntoon borom bi ne déedéet duma ma dem parce que ñaari ñoo nekk ci man te ñaari bu nekkee ci nit ki rek du man a defar loolu moo tax yàlla wax yonent bi ne ko mu ne walaw kunta faddan galida al qalbi wala waxu lool lan faddu min xawlika te yow pour ci sa bopp nga defar leen mooy il faut nga dajaloo ak ñoom kon loolu moo tax mu ne ñaari nag man manqué naa ko damaa gaaw a mer te dama dama xat xol te ñaar yi amee du ma mën a tey wax mhm. te koo xamante ne nag yaa ngi koy gindi dafa aajoo mhm. nga wax ak moom mhm. kon fa arsil ila haruna bàyyi ma rek te noppal ma yónni kooku nga xamante ne moom mooy haruna moom mën na wax ak ñoom ku yaatu la te itam moom ci boppam ku gis nga ku man wax la melul ko man duy gaaw mer dafa lewet wala mu ne ko fa arsil yónnil ila haruna ci haruna jibril bi ñëw ni yónni waat ko ci kan ci Haruna lii nga ma wax nii nga wax ko ñu ñaar ñu ànd dem liggéey benn bi te itam walahum yàlla ne ko ah déedéet Moussa man yow laa yónni Moussa tontuwaat ne walahum ñeen la leen alayya teguma zanbun tooñ naa leen parce que lan moo tax rey naa kenn ci ñoom kisa ba ñëw na ci sorotul kisas fa axaafu te dama ragal bu ma demee ak loxoy neen an yaqtulu ne ñu rey ma am naa ñaar ci ñoom dañ maa waroon a rey ba may doon xale wala defuñu ko ñu moy ma foofu ñu dem ba màgg ma rey kenn ci ñoom ñi war ko reyaat muy ñaar kon man duma dem loolu yow yàlla mooy ne dama ñu rey la ah yaa ngi dégg comme yàlla nag mbiram kenn xamu ko booy téye ci moom da ngay téye ci lu wóor ba mu wax la lu wóor mm-hmm. inna laa laa yaxliful miyaat mm-hmm. waaw mm-hmm. bu la waxee ne lii du am loolu du am waaye nag bu la nee acca nga jog dem lu la dal nag mu ne waxuñ ko woon parce que moom gis na ay yenente yoo xamante ay yenente lañu waaye seen yenente terew leen jaasi ñu rey leen comme moom itam mu dem ñu rey ko du dara kon yooyu yàlla damaa ragal ñu rey ma waxatuma pour affaire yi dem bi dem mën naa yaatu mën naa dem wax ak ñoom duma mer du def dara waaye danañ ma rey duñ ma may ma wax yàlla ne ko kalla lii la Moussa soxlo xaala yàlla ne ko déedéet kalla kenn du la rey waaye nag loolu nga ñaan sa danaa la ko defal fa nga xabaa yow ak Haruna jóg leen ngeen dem bi ayaatina ànd ak samay kéemaan inna maakum maa ngi ànd ak yéen mhm. mustamiuna di déglu nag bu waxee inna mhm. pour lan la li mhm. taazim ah, dafa réyal boppam am na ñoo wax nag toujours boo demee ci alquran borom bi tabaraka wa def ifraat xamal ne moom kenn rek moo fay def su fekkee ne dafa def jamoo nag kon dafa am ñeneen ñam fa booleel ñi ki malayka yi masalan ba muy wax ne inna maakum mustamiuna daf ko boole ak jibril loo bugg rek waxal ak jibril kon foofu yàlla la waaye jibril la am foo xamante ne borom bi tabaaraka wa kese mooy def foofu nag dafay wax ne rek man jibril bokk fa keneen bokk fa waaye li gën a wér ci borom xam bu ñu ko waxee ci alquran ñu ne li taazim maanaam daf koy def rek ngir kat ngir yàlla boppam moom borom bi kon inna maa ngi ma akum ànd ak yéen ñaar mustami'una di déglu nag faatiyaa jóg leen ngeen dem firawna dem ca firawna mm-hmm. fa quulaa na ngeen ko wax ne mm-hmm. innaa ñun ñii rasulu mm-hmm. dañ nekk ñoo xamante ne yonente lañ rabbil alamina yonente ki nga xamante ne moom mooy borom bindaafo ni lan moo tax mu ne innaa du jamoo mu ne rasulu du mufrad kon li waroon a wax innaa rusulu rabbil alamina comme jamoo la wala mu ne innii rasulu rabbil alamina mhm. ci siixa waaye alxuraan da nga koy dégg mhm. inna ñun ñaar rasulu lenn la ñu dox mhm. ki ñu ko yónni nag rabbil alamina mooy ki moom bindaafoon kon Moussa ak Haruna seen liggéey du ñaar benn la wala lenn la ñuy dox ñoom ñaar benn la ñuy dox doxuñu leneen kon innaan ñun ñi rasulu yonente la ñu rabbil alamina yonente ki nga xam mooy borom bindaafoon yi lii lañ ko njëkk a wax te mu firawna dafay wax ne moom ilahun ana rabbukum ñoom ñu ñëw indi ko keneen ku bokkul ak moom kii nga xamante moom mooy firawna xam ne Moussa wax la indi mu génn ci loolu ne an arsil maana bani israila ba waxu Moussa la de ne an arsil na nga yónni maana mu ànd ak ñun bani israila ñi nga xam ñoom ñooy doomu yaquba yi mhm. israil moo nekk yaqub mhm. moo nekk turam mhm. kon tey booy dégg bani israil mooy bani yaqub mooy yusufa ak gaayam yi yaqub li mu amoon ci doom fukki ak ñaari isna achara mooy al asbat ñoom la ñuy tuddee banu israila maanaam ñoo nekk doomu kan doomu ki nga xamante ne moom mooy yaqub kon jëlal bani israila nga boole ko ak ñun ñu génn dëkk bi dem la fa indi nag foofu nga xam moom mooy Misra rek na Firawna moomoo leen mm-hmm. lan moo tax loolu mm-hmm. jàng nañ ko ci gannaaw ci xisatu soratu Yuusufa mm-hmm. ba nga xamante ne Yuusufa wax na leen dem leen ngeen ñëw yéen ñëpp ngeen dëkk ak man fii foofu lañ continuer nag ba ka nga xam moom mooy Firawna yegg si saxi yaa ngi dégg kon ñaari la la laaj mhm. yalla ñu yoni hmm nang ko gem mhm. jaama ko moom yàlla mhm. koku nak sa digante la ak hmm waye nak ñaarel bi nak ñun ñoko mom an arsil maana bani Israel, ñi nga ñom ñoo nek suñu mbokk yi nga di leen di xatal di leen di sonal bayile ñu jog dem fu leen neex ci kawsu ñu dem dekk fa bana jaamu yalla hmm xam nga li mandu na wala mandu hmm firawna tontu ne genn ci alam nu rabbika fiina walida alam nu rabbika ndax yaruñ la fii naa nga ci suñu biir ci biir pale bi fii nii walidan ba nga juddoo ñu di lay nampal ba nga màgg ñu di lay jox ngay lekk ba nga nekk ponkal wala bista fii naa ba nga doonee ponkal mat mu kallaf nga toog ci suñu biir mi ne omarika ci say at si nii na ay at yu am solo parce que yeggoon a arbaina sanatan ci la door a roy waa ji door a daw génn fa lama mhm. ba mu demee ba mat mhm.